ci weeru koor bi ñu génn nga xam ne bi ren wax dëgg yàlla dafa nekk weeru spécial ndax li mu tombeek la ndax heure bi bu daan am nit ñaa ngi ci jumaa yi nit ñaa ngi ci bérébu jullekaay yi nit ñaa ngi dugg ci kër yi di saafonte di ballonte ak waaye contexte bii ñu nekk ren tax na peut-être loolu munta nekk waaye peut-être euh, gannaaw munta nekk ñu utiliser jumtuwaay yi nga xam ne yi peut-être moom lañu ñu euh, jamono jox muy technologie bi pour que mën a message bi ñu mën ko jàllale Euh, koor gi jeex na waaye corona jeexut kon nag kenn ku nekk ci ñun war naa gën a farlu ci euh, attitude yi nga xam ni amoon nañ ko ci euh, laata koor gi ñëw ba ci koor gi ñëw bu koor gi jàllee tamit ñu gën ko continuer mesure barrière yi nga xam ni autorité sanitaire yi ñu ngi koy wax autorité administrative yi di ko di ko digle nit ñi nañ ci nañ ci takku am nañ yaakaar ni fii ñuy toll ci xeex bi Euh, bu neexee yàlla bala mu yàgg xeex bi dana mën a génn ci Sénégal ndax dëgg yàlla ndax te tey département yu bari euh, xeex feebar bi amu fi donc bu ñu góor góorgóorloo rek euh, gëm na ne fii ki fii ki weer feebar bi dina mën a dina mën a génn ñu dellu ci suñu liggéey dellu ci nañu daan def loolu rek moo doon kàddu gi di leen sant di leen gërëm di leen baalu àq di leen baalu àq di leen ñaanal yàlla balay tabaski gi ñëw en tout cas yàlla na yàlla def lii ñu fàtte ko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Euh, nous venons de terminer le mois de, de, Ramadan qui a été un mois assez spécial euh, parce qu'en en fait nous, ce mois nous a trouvé en pleine pandémie. Euh, cette pandémie qui est euh, en tout cas euh, qui nous a fait vivre des moments, des moments uniques euh, carrément dans, dans, dans, dans tout le, tous les pays du monde et également au Sénégal. Euh, comme j'ai dit tout à l'heure en, en, Wolof, le ramadan est fini, mais le corona est là. Euh, donc ça veut dire que toutes les mesures barrières qu'on préconisait, tout ce que les euh, autorités sanitaires, les autorités administratives, en tout cas, nous donnaient comme euh, euh, prescription, nous devons continuer à les faire, à les respecter. C'est notamment les mesures barrières. Nous pensons aujourd'hui que nous pouvons aller euh, travailler sans pour autant euh, propager la maladie en prenant tout simplement les mesures barrières appropriées. Euh, nous pensons que, allah sous peu de temps, avec euh, le niveau d'évolution de la maladie euh, au Sénégal, que ce sera bientôt derrière nous. Je prie pour tout le monde et, et également prie, euh, allah que dans deux mois, peut-être que la, la, tabaski sera, sera là et qu'on espère que d'ici la tabaski, on pourra retourner tout le monde dans les mosquées et dans les lieux de prière salaamaaleykum wa rahmatullah ngeen jot suñu vidéo nag foo si biir réew wala si bitim réew da ngeen di abonné fii si Tawfekh Production ngeen mën jot moo vidéo boo xam ne dugal nañ ko ngir xam li nga xam ne